mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci dimanche bu jot ci émission gox bi tey nag ñu am gan mu nekk bokk moomeel bu Fann Point E amitié mu di Palla Samb moom la waral dalal tey ci émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay dalal ci émission gox bi. Euh, maa ngi lay fay. Mhm. di la remercier également ci invitation bi. Mhm. di nuyu say auditeurs yi déglu. Mhm. Rewmi FM yëpp. Mhm. di nuyu boroom kër gi. Mhm. ak personnel bi yëpp. di nuyu itam auditeurs yeeg auditrices yeeg mbokk internet yu nekk ca mi officiel. waxtaan wi dañ koy doole rek euh, ci sensibilisation bi nga xam ne nag moom moo jëm ci Covid 19 bi nga xam ni moo di coronavirus bi nga xam ni moom moo lëmbee àdduna jamono ju ñu toll nii monsieur le maire euh, semaine bii euh, waaye ministère de la santé mu jukki nañ seen lim nee nañ Fann Point E Amitié seen gox bi am na ci ay cas yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko foofu mu di ñaar ndax mun nga ñu defal situation bi ni mel ci sa gox. waaw damay d'abord. nuyu population commune Fann Point Am ci yëpp mhm. di ñaanal euh, ñëpp euh, yàlla ñu am jàmm mhm. yàlla nangu koor yëpp amiin yàlla dimbali ñu également si yërmandeem gu yaatu mhm. ba mbas mi nga xamante ne mooy covid 19 génn ànd ak weeru koor gi dem bi nga wax nag yàlla def na effectivement comme ni nga ko waxee boobu ba léegi yàlla mu ñu doon suturaal. <laughs> donc mais depuis avant-hier on nous a signalé que am nañu benn cas au niveau de amitié du diggante boobu. <laughs> donc mais côté amitié de la je pense. <laughs> loolu nag ah mënuñu si dara. Euh, lu yàlla dimbala. dim lu yàlla tudd la. donc euh, nit la boo xamante ne. Euh, du sax sénégalais. mais nag fi la dëkk. ci commune bi la dëkk quand même. Mhm. alors euh, yëgal bi euh, am na njur ci bari maire yu bari yi ma dalal fii ñoom dañ ne ci télévision bi dañuy yëgal yëgee nii ñoom seen commune am na ay cas ndax wàll wi ni mel ci yow noonu la fa mel. non man nag euh, en ce qui me concerne damay remercier c'est l'occasion pour me remercier euh, le médecin chef monsieur docteur Mbaye. Mhm. ak équipe am parce que yàlla def na ne chaque jour que jëfee hmm. ñu def la situation ak moom hmm. chaque jour dina ma defal situation bi yëpp chaque jour hmm. donc y a un comité de crise boo xam ne mu ngi nekk biir Gaspard Camara euh, vingt quatre heures sur vingt quatre lay fonctionner donc euh, dem naa fa toog rencontre leen ñoom ñëpp ñu defal ma situation bi mais chaque jour di nga am situation docteur Mbaye dina ma defal situation wu. Mhm. li xew si arrondissement bi. Mhm. ak li xew sama commune. Mhm. waaye suñ jógee ci loolu mais sensibilisation bi ci euh, base laata Covid bi. Euh, commune bi ñu ngi leen doon dégg bu baax ci sensibilisation bi tey euh, dafa gën a yokk mel na ni. waaw xam nga sensibilisation moom du doy. parce que malheureusement am na si ñenn sénégalais yoo xamante ne xaw ma inconscience la. xaw ma irresponsabilité la mais dara changé wul si lu ñu doon dund. j'ai même l'impression que am na ñoo xam ne gëmuñu ne feebar bi am na. ba léegi nii. et c'est grave. bu ñu tollee ci ay vingt cinq cas ñoom. gëmuñu ko mais c'est très grave moi j'ai reçu dans mon bureau. nit koo xam ne intellectuel la. mais bi mu waxee dama ko ne sëriñ bi vraiment mun ngaa jog génn ko parce que quand ce mec ma dit euh, feebar bi amul politique la. ma ne ko yow en tant que intellectuel yow sax nga toog fii Sénégal am ay vingtaine de morts nga naa ma feebar bu politique la non non donc les gens sont inconscients certaines personnes donc euh, moo tax sensibilisation bi du doy te yombul itam. yombul parce que xam nga sensibilisation il faut mun répondre ak ay norme <laughs> munuloo dajale mbooloo bu bari. <laughs> au moment où ñu ngi tere mbooloo. <laughs> dugal si kër nit ay mbooloo yu bari am na ñoo xam duñu ko nangu sax. donc il faut ñu organiser ko. donc euh, dajale def de petit groupe. tas leen nga xam ne au moins benn wala ñaar ñooy dugg si kër. dem si grand place yi et cetera waxtaan ak nit ñi donc euh, sensibiliser leen. Euh, parce que du doy. Mhm. parce que actuellement ni prévention bi moom moo am solo. puisque amaguñu feeb lu faj feebar bi. Mhm. combat bi yëpp si prévention. moytu la war a doon mhm. ci njëlbeen gi ay porte porte ndax yéen loolu ngeen gën a farataal ci commune bi. xam nga yàlla dafa def euh, bi Sénégal amee ñaari cas. maanaam benn tubaab ak ak immigré euh, boobu ñëw. boobu ñaari cas rek la Sénégal amagoon. si laa convoqué woon képp kuy na ko relais communautaire. ak les jeunes. waa district Gaspard Camara envoyé ñu ñu def formation forme ñi nga xam ne ñooy bàjjan gox parce que itamit comme que mosuñ lu bees la ci réew mi. Mhm. mosuñoo dem ci lu mel noonu. doo xëy rek yabal nit ñi si kaw si kër nit ñi. Hmm. donc ñu woo waa Gaspard kamar ñu ñëw defal formation bàjjenu gox relais communautaire ak jeunes yi. Hmm. bi ñu leen formé wax leen naka la ñu war a comporté ñoom si seen bopp d' abord lan la ñu war a yor lan la ñu ban équipement lañu ñu war a am naka la ñuy duggee si kër nit naka la ñuy waxee ak nit jàngal leen ko ba ñu mokkal ko. Hmm. si la ñu nag doté bàjjenu gox yeeg relais communautaire yeeg jeunes yi. moyens yoo xamante ne. moo leen permettre ñu def porte à porte. vraiment c' est l' occasion pour man ma remercier bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi. plus les jeunes. Euh, ñu ngi def liggéey bu remarquable. def nañ si liggéey bu jaar yoon. vraiment c' est l' occasion ma ma remercier leen. parce que vraiment liggéey nañ si liggéey bu rafet. ci ñetti pàcc yëpp ngeen koy amal Fann Point E Amitié. non yombul day sept mhm. ñetti kii de c' est mhm. sept quartiers. Mhm. sept quartiers la am. donc sept quartiers yëpp fu si nekk. am na ay bàjjenu gox am na relais am na jeune. donc ñoom ku nekk da nga dem si sa quartier ñu seddoo liggéey bi tas def sensibilisation bi au niveau au niveau des des maisons. mbokk yi euh, di fàttali rek ni mun ngeen bokk itam ci émission bi bu ngeen bëggee bokk rek 88 ngeen di def 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86. mel na ni ba mbir mi jibee jël nga say euh, matuwaay ba mu mat li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi naam amul ay marché yu gën a mag foofu mais mbir mi ni mel am na organisation léegi. waaw man euh, parce que avant président di jël mesure bu bees bi mu mujjee jël. bii nga xamante ne cas yi commencé na bari. ma xam ne man benn marché la laa am muy marché tubaab. marché tubaab. Euh, ma ma woo leen ñu ñëw. ñu waxtaan. ma xamal leen ni. Mhm. am na lu mënatul nekk. di jël mbokk moom. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, soxna si tur bi ak foo ñu woowee. Demba ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. Mhm, sant bu baax alhamdulilah. maa ngi ziyaare bu wér a ñu ngi delloo ziyaar bu baax a baax. ci weeru koor gi ñu nekk. jërëjëf jërëjëf. man la maam Kumba Diop. maam Kumba Diop bisimilah. di ziyaare suñu maire boobu. Mhm. mu monsieur Palla Samb. Mhm. di ko xamal ni foofu mu ñëw këram la na dalal jàmm. Mm-hmm. waaw Mbemba. Mm-hmm. ah ko leen invité parler nag moom suñu monsieur le maire boobu dinaa ci sawar a wax. Mm-hmm. parce que vraiment ni ko gisee noonu. noonu la toll. yàlla dafa def ni que liggéey rek mooy affaire am. boolewul dara ku wax. vraiment commune bi nag. mu yore ko yor bu rafet mhm. sagal nu ci bu mhm. baax a baax a baax mhm. parce que dégg na ni nga ko doon laaj ci affaire prévention bi ci commune loolu moom def nañ ko ah, mooy lim la wax rek ñu jàngal ñu nu ñuy duggee ci kër yi ñun relais communautaire yeeg bàjjenu gox yi pour mun a sensibiliser nit ñi avant kenn di jóg ñu ñëw jóg def loolu ak suñu matériel hmm. vraiment ñu dikk ci sant dikk ci gërëm hmm. parce que nit ku baax la hmm. nit ku mun liggéey la boolewul dara ku wax vraiment commune Fann Point E Amitié ñu ngi koy remercier parce que gis nañu nu mu téye commune wul lekkul dara bàyyi ñu moom sax dafa lekkul far lépp lu mu am rek pour population la. Hmm. parce que jafe na ne fu mu nekk nii maire boo xamante ni. Hmm. mu ngi defar ay jardin public. Hmm. mu am euh, sécurité. Covid bi bi mu jotee. bien avant nit ñi daan di joxe ay denrées alimentaire moom ci wàllu boppam. mooy moo yëkkati deux cent quarante millions ci population am. ne képp ku dëkk ci commune bi. bi ci yeewoo amul étranger amul dara joxal ma leen ñoom ñëpp kikk di nga dem ci kër fekk fa quatre ménages wala cinq ménages ñooñu ñëpp ngay jox lépp a nag wax wax dëgg yàlla donc moom man ku may wax ci moom sax damay xër ci moom wóor na yàlla man daal euh, kii euh, euh, Memba naam maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm may ko gudd fan ak te lépp lu muy mbébét mbébét ci commune yàlla na ko ko yàlla defaral parce que tamit c'est évident yow nga nekk ci commune bëgg say jigéen liggéey di débauché ay somme yoo xamante ni mais da nga bëgg sa jigéen ñi liggéey amul kii fii la par amul kii fii la par mm-hmm. mais moom noble la parce que Rasulullah noble la mais dafa bëgg ñuy wàcc conteneur parce que jigéenu commune dafa bëgg ñuy liggéey. Mhm. waaw ku leen gis naw leen. Mhm. donc monsieur le maire ni ñu suturaale nii. Mhm. yal na la ko yàlla suturaal ci barke Seydina Mohamed. nga jël say bàjjenu gox. kenn daawul leen woon fay ak say relais. chaque mois léegi nga daggal leen salaire. loolu ku noobu rekk ko mun a def. da nga ñëw nag ci kër goo xamante ni borom kër gi dafa estimé bu baax. parce que day liggéey bëgg ko liggéey waaw parce que de tout le temps mi ngi lay nemmeeku. wóor na yàlla ci yonante bi yow moom dañ lay bàyyeek yàlla. parce que su may wax fii am naa du parce que am na ñuy buutante pour dugg. man daal lu ma lay ñaanal monsieur le na la yàlla defal jàmm. Mm-hmm. yàlla bàyyi la sa sago. place boobu nga toog yàlla nga fa toog a toog a toog ba tooyal ci barke Seydina Mohamed. Mhm. ci barke man Cheikh Ibrahima Fall bi nga yaakaar. jërëjëf kontaan nañu torop. jërëjëf waa Memba. naam. yow it kontaan naa si yow. waaw jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf. di la ñaanal yàlla. Mhm. yàlla bàyyi la sa place boobu. jërëjëf ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf jërëjëf alors ne xaaral ne quitte yaa am allo. Mhm. waaw sëñ bi na nga def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. yàlla na yàlla dolli sant gi. Mhm. man la Ndiire Diène. Mhm. dëkk si Sicap Rewdine. Mhm. kooku ngeen invité tey. dañ ne buñ ne nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax. ay mbokkam ñoo jëkk wax baaxam. ñun ñu soog cee tegu. ndax rakam bu mu bokkal ndey ak baay. moo ne. ba sans papa dëddoo. la bu leen jooy papa maa leen di yor kon kooku yaakaar naa ne buñ ko joxee réew dana ko téye te nag ci moom lañu ñu xamee lan mooy maire ndax mairie bi am na ñaar fukki at ak juróom-benn musuñu xam li mairie moom moo ñëw ibbi mairie bi génn ko ci mbedd bi nit ñi xam lan mooy mandat ci la nit ñi xamee ne jigéen. dafa war a takk ndiggam liggéey ndax loolu la ñu wax at mu jot mu financé jigéen ñi fekk ngeen di tëdd ci seen biiri kër mu jël leen génne leen daggal leen salaire ba ñu amul woon lu ñu jox seeni doom ndékki tey ñu am ko bu tabaski jotee mandat yi taxaw bu koor jotee suukaru koor yi génn dañu mm-hmm. ne mm-hmm. lu ñu musul am. jërëjëf moo ñu ko jox. Mhm. ndax cigare réduit gii. rue mhm. juróom-benn gii. Mhm. ñun bi ñu juddoo. tey ñu ngi ci juróom fukki at ak nangam. musul am tali. moom moo ñu ko talil. moo ñu taxawal jardin. jërë jërëjëf jërëjëf bëgg nañ ci waxtaan ak maire si loolu. <laughs> ñu ngi tabax hôpital yi. ñu ngi def lépp. kon dañ ne koy ñaanal yàlla. yàlla na koy yàlla jox lu raw mérite yi. ci daraja yonent bi jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ci barke Cheikh Ibra Fall mi mu yaakaar uh-huh. am lu uh-huh. jërëjëf ñu ngi sant monsieur le maire ñu ngi woon fu am solo ci marché yi nga ne tëj nga waxtaan ak ñoom ñoom ñu comprendre la ci li ni mel c'est pas évident nag non c'est pas évident mm-hmm. parce que mm-hmm. bon euh, bi boo bi xew me yëf yi yokkoo mm-hmm. euh, dama leen woo ma ne leen léegi. Mhm. dama bëgg pour un mois. Mhm. mais boo buggee tëj maire bi pour un mois da leen di xañ lu ñu dunde mhm. man leen dinaa leen jox dund un mois ngeen toog seen kër liggéey mhm. ñu d' accord ma jox leen assuré nga leen ko waaw jox amul xàjj mhm. képp ku fa am képp di jaay si marché bi jox naa la loo dundalee sa njaboot un mois nga toog sa kër ñu tëj marché bi mais est que yomboon na décision yi ni mel non c' est pas facile ah c' est difficile ah parce que xaj nit li muy liggéey dafa metti donc mais am na foo xam ne fu ñu fa tolloo nag. Mhm. Euh, maslaa bi wala sentimentalisme dañ koy jéem a teg ko côté xool la mhm. réalité d'en mhm. face. ñu jël ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Oulimata Daffé bàjjenu gox. Oulimata Daffé bàjjenu gox ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi. wax dëgg yàlla ñu leen di ziar. di wax ne tey kii nga invité. Mhm. booy wër. Mhm. booy wër euh, booy làmb. Mhm. daj nga. macha allah mooy suñu maire. nekk nit ku baax macha allah. te boolewul daraak di jëf te boolewul daraak wax. dañ koy ñaanal yàlla. yàlla mi am fay. yàlla ko yàlla fayal ko fayal ñu ko ci weeru barke weeru koor bi. jërëjëf. kenn xiiful. bañ ne Covid. moo njëkk a jóg sensibiliser. dugg ci kër yëpp pare yëkkate ak kër gu ne hmm. famille bu nekk mu jël kër jox la mu hmm. ngi ci jeunes yi hmm. euh, permis de conduire yi mi ngi ci bourse yi te ñu mu jox bourse xamu sax képp ku mu defal teraanga labal na la tax xamula xam tey bu la gisee du la xàmme xàmmewu la donc loolu mu yëfu gor dañ koy ñaanal yàlla nag. ok fu mu bëgg a yegg yàlla na fay yegg. ci dajee Seydina Muhammad. ok ok. merci. jërëjëf alors ñoom ba nga leen joxee loolu leneen ñëwaat muy di kit alimentaire yi. nit ki da nga ko naan demal nga toog sa kër waaye faw nga jox ko dara mel na ni euh, mairie bi génne ci ab koppar ñaata nga def ci li ni euh, li ni mel ngir xeex ci jàngoroy coronavirus bi. bi mu mbir mi xewee rek. Mhm. ñuy xalaat confinement dina am wala confinement du am. Mhm. ñu ne nañu waajal ñun suñu suñu suñuy population parce que comme que xamaguñu fan la jëm. Mhm. nañu teel a fagaru. donc si la ñu def une délibération. Euh, ma jël lépp loo xamante ne. Mhm. dafa nekkoon ci cabinet du maire parce que. Mhm. yàlla dafa def heure bi fekk na voté nañ suñuy budget ba pare. bien sûr donc. Mhm. am na lu ñu prévoir ci sama cabinet. comme cabinet du maire dépensement dépense de fonctionnement. ma génne lépp. ak leneen ba muy deux cent quarante millions parce que fii réew mi toll. maire warul soxla dara pour boppam. maire warul soxla dara pour fonctionnement. am na ñu leen koy tuumal ñu ne maire yi dañ koy utiliser ci yeneen soxla. waaw mais xam nga am na loo xamante ne nit ki moom ni mu toll rek lay waxee. Mm-hmm. Euh, nit ki tamit euh, mun na moom ni mu mel mun na foog ne vis-à-vis am noonu la mel. Mm-hmm. mais yàlla bind na ay doomu aadama te yemalewu leen. Euh, man bi may def loolu dama si boole transparence bu rëy. Mm-hmm. parce que munoon naa ne acte de gestion la. man kenn la engage engagé wul sax conseil municipal parce que. les gens dañuy jaawale acte de gestion xamuñu ne acte de gestion du conseil municipal maire kese la engagé. Mhm. parce que bu ñuy auditer kenn du auditer conseil municipal maire la ñuy auditer donc maire bi bu ñu ko votelee ba pare mun na jël responsabilité mu doxal moom kenn mais pour mbir mi leer mhm. dama créer au niveau du conseil municipal une commission boo xamante ne mooy saytu deux cent quarante millions yi fan la génne fan la dugg fan la jaar commission boobu sensibilité politique yi nekk ci biir conseil bi yëpp dañ fa am ay représentants ñooñu ñoo réunir génne deux cent quarante millions yi fii lañ koy dugale nii lañ ci dépensé fii lañ ko dugal ma dem ci biir quartier yi créer fa commission yoo xamante ne mooy commission de distribution et de recensement et de distribution nga xamante ne bàjjenu gox yaa ngi ci relais communautaire. AS ASC. directeur directeur directeur école sax am na si. mouvement jeunesse yi. jeunesse yeeg tout le monde chef de quartier conseil de quartier ñëpp nekk si. sensibilité politique yëpp. ñooñu ñoo def seen recensement. andil ma. ñu jël kooku rekk ci mbokk bi une minute ci tënk salaamaaleykum mbokk mi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si tur bi ak euh, foo nuy woowee. waaw man maa ngi wootee zone be mhm. maa ngi tudd jàlloo ay satu jàlloo waaw di présidente fédération des ay Aïssatou ñaari minutes ñu waxtaan lan nga ñu mën a wax tey ci maire euh, Palla Samb. waaw nee naa tey dangeen ngeen da ngeen invité koor. di mhm. olof di wax koor. waaw ndax duñ ko bëgg di koor ko bañ di koor kooku mooy la maire Palla paa la nee naa leen mairie daf ko mbapat loo xam ni dafa xëy rek jox fi depuis que Fann Point et Amitié am nekk commune ba léegi paa la dafa nekk conseiller municipal nekk ci biir mairie bi donc ko def na 15 ans ci mairie ba xëy tey yàlla ak maam Cheikh Ibra Fall jox ko mairie bi mu yore tey mu ñëw nag xam lan mooy mairie xam lan mooy compétence décentralisée. xam nag lan mooy des populations à la base dafa ñëw xool couche ci gën a vulnérable dans la société ci commune am muy la femme muy les enfants mu ne xaar leen parce que xam nañ ni jigéen bu ne tey financement nga soxla ak la la développé allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. waaw donc mu daal di ni man de tey lépp loo xam ne mën naa leen ko defal. moo di ngeen ñëw toog ñu waxtaan sans distinction politique la muy def nii xooli ci ka bokk feneen ak ko bokk feneen dafa jël gouverneur commune am yëpp boole andi financement bu mu njëkk andi trente millions la muy daaw mu jox ko diggéen nit ñi liggéey leen pour mën a autonomiser wu ñu demaat liggéey mu ñëwaat ren andi cinquante millions jox ay jigéenu commune am ñu leen nag bii pas daaw liggéey ngeen mais na ngeen liggéeyee doyu ma ren dama bëgg ngeen créer ay micro entreprise liggéey ci biir entreprise donc ci loolu nag la ñu nekk siège boobu mu xool ñi nga xam ne ñooy ay étudiants ci biir commune am ku ci nekk mu jox la bourse te jox la bourse un naa jox la bourse deux ans da lay accompagner nga am bac ngay dem ak moom ba nga am licence trois ans la lay accompagner ci bourse yooyu mu joxe ci biir euh, commune am jël leen personne âgée xool seen dundin ni mu mettee mu jël leen def leen ay conseillers kon nag Talla Samb nii monsieur a maire maa ngi lay nuyu di la gërëm te noonu laay duggee uh-huh. nee naa leen doy na ndaxte nag gis nañu temps yi Covid bi am na lu mu ci wax uh-huh. bokk na ci premier maire uh-huh. bu njëkk a alerté ci affaire Covid bi booba nag mettiwul bareegul nii ci biir Sénégal mu ni kon nag lii di raam jóge Europe jëm ci Afrique ñun Sénégal waruñoo toog di xoole. ca la woo ay bàjjenu goxam. Mhm. ca la woo ay relais communautaire am. ca la woo les jeunes. ci la woon les personnes âgées. di leen kon nag woowaat district sanitaire bu Gaspard Camara. Mhm. di leen defal leen ma formation pour sama couche yi. jërëjëf ñu mën a ñëw dugg. pour alerter. jërëjëf moo tax euh, mhm. sànq na ma ko waxee. Mhm. boo déggee ñun la commune de Fann e, ñu bari di ñu leen a ñee ci affaire Covid. jërëjëf parce que nag bi ñu teel a jël suñu ay responsabilités. jërëjëf te moom la. jërëjëf jërëjëf ñu waxati. ñu ne ah naka la def parce que nee nañ confinement. confinement soxna Aïda Aïda Diallo tënk rek euh, ñu tënk rek parce que ñu lu ñu war a waxtaanee bari na alors yaa ngi woon nga nekk euh, consensus daal mbir mi am ci la xaalis bi génnee ngeen dem jàppale ko ci askan wi. effectivement ñun bi ñu bi nga xamee jël naa boobu décision. Mhm. Euh, ak con ak conseil municipal. Mhm. donc euh, dama créer commission boobu. Mhm. pour waa pour conseil municipal bi. fekkee lépp. te amul benn xàjj ak seen. non lépp luy sàmm nga ku nekk ak parti bi nga jóge walla coalition. bien sûr ñooñu ñëpp laa dajale. ku coalition ak parti politique bu ne. woo naa la ñu toog. ma ne leen lii laa bëgg. jour boobu débat contradictoire amu si ñëpp si d' accord. ñëpp si parce que xam nañu. mbir mi nu mu war a demee. mu ñu wax fii ak fii ak fii lay jaar. ñu créer commission boobu. commission boobu moom lañu lu ni mel la ñu def si quartier bu nekk. pour que mu leer soo xoolee biir Fann Point Amitié. bañ ko commencé ba fi may waxee yow ni kenn déggu si coow. kon donc coow jibul kenn déggul coow parce que lépp leer parce que sa képp koo xamante ne dëkk nga si commune bi. parti boo mën a nekk. am nga représentant si commission yi au niveau des quartiers. donc ñun wàccuñu ñun. dem defi recensement. dañu bàyyi quartier bu nekk mu defar recensement. boppam la ñu àndil. loolu lañ lu loo ñu nit àndi rek jox nañ la ba dolli leen. ba mu wóor ñu ne ba fii ma toog jox ko yow amul benn ménage. bu taxaw ci commune bi ne jotuma kenn amatul. kon donc su ma la déggee mooy commune Fann Point Amitié ndimbal bi nga xam ni mairie bi da koy joxe ñëpp am nañ ci. non cest à xam nga am na ñu bëri sax ñoo xamante ne bi ñuy njëkk def recensement. Mhm. ba ñu demee seen kër di leen recenser dañ ne woon doy na. parce que xamuñu woon lu ñuy joxe. Mhm. parce que foo woon nañ ne dañ leen di jox ay cinq kilos ceeb ak ay ay ay quelque mhm. mais il a fallu ñu gis kit bi ñoom ñëpp daw si waat. yow kit ñaar nga joxe kon. man euh, jox naa par ménage waxuma par kër parce que xam nga boo nee da ngay dimbali nit. Mhm. ndimbal bi dafa war a mat. loolu tax ma dem deux cent quarante millions boo dimbalee kër. mun nga àndi problème parce que soo dugg suñu Sénégal ni muy dundee la. mun nga dugg si kër fekk ñeenti njël. kenn bokkul sa bokk borom njël. boo fa dugalee saako ceeb andi nga problème man ma ne sama gars yi nag du ma def par kër par njël laay def képp ku dëkk si commune bi. di teg cin. dinaa la jox nga dund loolu. locataire yi si lañ bokk. amul locataire amul sénégalais amul ñàkk amul pël Fuuta ak képp ku dëkk jox nañ ba jox tubaab ñoom jox nañ ba jox tubaab parce que dama ne képp koo xamante ne yaa ngi yewwoo si biir commune bii. te am njël nañ ma la nañ nañ ma la recenser. donc ñu recenser kër par kër ñaata menage moo fa am. di nga dugg si benn immeuble boo xam ne douze ménage moo fa nekk douze douze nga fay dugal lu lu am rek. donc noonu lañ ko defee donc kër par kër. ñu jox ki kit boo xamante ne. Mhm. saako ceeb la. Mhm. goroosu suukar. Mhm. juróomi liitaru dëwlin. ñetti butéel eau de javel ñetti butéel madaar. juróom benn saaku sa sa saabu. par tëbaluñu kenn. donc amul së séddoo ceeb. ñu jël kii salaamaaleykum. maaleykum hmm, soxna si ñu ngi lay nuyu di la daba Samba. daba Samba. dëkk commune Fann Point E Amitié. Daba soxna Daba ci tënk rek. ñaari minute ñaari minute lan nga nu mën a wax tey ci maire bi toog fii tey. waaw moo tax ma woote ne xam hmm. naa tey moom bu ngeen ko wooyee pour émission. Hmm. émission bi dina xat nag. Hmm, waaw kon ñu tënk ko rek ñaari minute waaw. parce que Covid bi vraiment. ni mu ci liggéeyee macha allah ñëpp gis nañ ci seen bopp. moo tax tey euh, séddalee Macky Sall bi dégg naa di ngeen dégg coow ci commune bu ne waaye di du ngeen ko dégg. Mhm. parce que nag moom li ko war yëpp yëpp wax ko dëgg yàlla def na ko ci heure bi mu ko war a defee comme ni mu ko waxee noonu rek. Mhm. macha allah daal moom commune daal kenn merul ci moom. Mhm. dëgg yàlla. ok sant ko ñoo ngi kontaan bu baax. jërëjëf bu baax ci moom di ñaan yàlla mm-hmm. yeggale ko sago. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. xam naa ni moom tey bu ngeen ko bu doon uh, émission bi da ngeen ko wàccee ci biir commune bi. Mm-hmm. commune bi ñëpp génn ñëw teew. yàlla baax na incha allah jaral na leen ko. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sant ko macha allah maa ngi ko koy seedal. di ko ñaanal. yàlla na yeggale. ak jàmm ak salaam. am na solo ndax ñi mu seetal ñëpp ñëpp ñëpp vraiment kenn merul ci moom. muy bàjjenu gox yeeg population bi mhm. ni ko waxee ci séddale bi noonu la demee mhm. dafa ni bu leen bàyyi kenn mhm. kenn ménage par ménage bu leen tëb kenn locataire bi étudiants yi sax am nañ looloo tax bu soobee yàlla xam naa ni moom euh, dundu réew mi moom dinañ ko dégg te duñu dégg commune bi am ci benn problème wala di wax am nañoo amuñu loolu moom yàlla suturaal nañu ci bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. donc euh, monsieur le maire nan nga mën a euh, euh, mën a am consensus boobu nga xam ni génne na ci commune bi ba amul benn coojibul. waaw mais xam nga consensus moom lépp mu ngi dépendre si xam nga nit ñi kenn moomu leen. Mm-hmm. xam nga boo faloo maire rek wala nga jiite dara rek ne man la man la man la nit ñi toog seetaan donc mais buñ la dénkee. li ñu dénk c'est partagé ko. Mhm. kii génn léegi di wax nii. Mhm. conseiller municipal la. Mhm. commission bi ma lay wax moom si la bokk. commission wu conseil municipal bi la moom si la bokk. donc moom moo yoroon moom moo doon présider it commission distribution wu amitié 1. donc pour dire que. mbir mi waxtaan la rek. amul PS. amul APR. amul benn bokk yaakaar amul leneen ñëpp commune bi la ñu bokk. pan liggéey bu jotee. nañu teg parti yeeg coalition yi te côté liggéeyal askan bi. Mhm. bu politique jotee nag ku nekk sol sa mbubu nga nga wàcc dem politique. Mhm. commune bi nga nekk am na ay leader euh, bëgguma citer tour ah, leader yi ndax ñoom tey ñëw nañ bokk ak maire ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci xeexu mbas mi ci commune bi. bon am na ay leader et effectivement ñëwuñu ànd ak man mais maa ngi rafet lu seen liggéey. ku nekk ngi def dara parce que mhm. Karim Fofana il est ministre de la république andina na ndimbalam si population bi gis naa tamit ay jeunes am di def sensibilisation ñoom tamit ba démb rek gis naa leen ñu ngi def sensibilisation ku mel ni docteur Malick Diop moom i tamit gis naa tey te tey commencé na moom tamit commune bu benn nit bu nekk am masque commencé na ko tey muy muy geste bu bu ñuy rafetlu Pape Mayel Diop également commencé woon na bu yàgg joxe moom tamit si donc pour ku si nekk même bu fekkente ne dajaloowuñu dajaloo bi tam moo gënoon même bu ñu dajaloowul mhm. l' essentiel mooy ku nekk yaa ngi def mhm. te au finish mhm. population bi moo siy gagné xam nga parce que bu fekkente ne population bi ku nekk dafa naroon am benn saaku ceeb bu la meer jox léegi bu ku nekk defee sa côté léegi population bi ñoo siy gagné di nga am li la maire jox di nga am li la Karim Fofana jox di nga am li la Pape Maire jox di nga am li la Malick Diop jox donc je pense que c' est ce qui mooy Euh, ndimbal bi na na dem si population bi rek man man nag ñoom ñëpp bu ñu defee mm-hmm. man maa leen war a gërëm parce que man la ñu defal mm-hmm. parce que yàlla def na ne mm-hmm. man maay maire commune bi donc ku si def si ñoom rek man nga defal ku defal population bi rek man maa la war a gërëm donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp monsieur le maire ñu xuus ci waxtaan bi gis nañ itam ñi nga xam ne ñoom di bàjjenu gox yi am na kenn ci fi dugg sànq wax na mu ne ba mu ñëwee ba tey bàjjenu gox yi daawuñu leen fay mais ba nga ñëwee daan ngeen leen fay lan moo waral li ni mel euh, ndax dangay ngay gën a booster jigéen ñi ci wàllum liggéey wala euh, lan la. mais effectivement xam man bi ma ñëwee euh, benn bés ñoom dañ ma demander audience. Mhm. les bàjjenu gox. Mhm. donc bi ñu ñëwee ma recevoir leen ñu wax ma seeni jafe-jafe. kën ne ñoom depuis ñu créé bàjjenu gox ba léegi. Mhm. Sénégal yëpp benn bàjjenu gox amu fi salaire boo di nga liggéey ba liggéey jeex ñu jox la ay cinq mille francs paas xam nga loolu doy na waar si kii ñoo xam ne ñoom ñëpp ay ay borom njaboot lañu. Mm-hmm. lu ma leen dimbalee lañ doon wut si. Mm-hmm. ma xalaat ne. Mm-hmm. ma jël xaalis may leen. ñu seddoo ko lekk ko mu jeex après ñu continué waat galère amul njariñ mën leen yéen comme que askan bi ngeen di liggéeyal. léegi dama leen di defal lu gën a neex dimbali leen financièrement. Hmm. à partir de tey yéen ñëpp ku si ne def naa la agent au maire dinaa la dagal salaire ngay fayeeku par weer. jël ay relais communautaires également. boole leen les relais communautaires également. Hmm. amul fooy gis en tout à part Fann Point hmm. amul benn commune ci cinq cent et quelque communes collectivités locales. fooy gis bàjjenu gox ak relais communautaire buy fayeeku salaire. Fann Point rek nga ko gis. ma jël bàjjenu gox yi jël relais communautaire yi ñoom ñëpp daggal leen salaire non seulement parce que nit ki boo koy liggéeyloo na am lu mu lu mu lu mu jox njabootam d'abord. Hmm. te ñoom ñëpp ñii ay veuve lañu ñii ay divorcé lañu ñii ay mag lañu donc yor seeni njaboot. doon ay jàmbaar fàkk tëdd ma xam leen parce que yàgg dëkk ak ñoom si quartier bi xam neen bu baax dëkk ak ñoom si commune bi xam neen bu baax. Mhm. donc mën indi si support boobu apport boobu. Mhm. jox leen ay salaire pour ñu depuis ma ko def nag réccu ma ko parce que gis naa liggéey li ñuy liggéey ci commune bi. Mhm. femmes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bi di jóg di daan seen doole ci wàllum koom financement yi ndax financement yi tamit amul ay mbirum politique ci biir. xam nga man yàlla moo ma ñu teel ma tàggat dañ ma teel a tàggat hmm. si lan mooy gestion collectivité locale dama teel a xam naka la ñuy gérer mairie hmm. ndax ñi ma du duñu ay cuune dañ dañ ko dañ ko naan cest à dama nekkoon si diggante ñaari kàngam hmm. muy Mamadou Diop ak xalifa Sall ñaar ñoo ñoo ma jàngal la gestion des collectivités locales de telle sorte que am na loo xam ne bu ma ko si defee rek cuune la donc man depuis ma ñëw si mairie bi. Mhm. jour ba ma takkee bande bi. Mhm. sama première déclaration. Mhm. laa leen wax parti jeex na fii tànk maa ngi fi. ñu jël kooku ñaari minutes salaamaaleykum. na. laa parti jeex na fi. tànk maa ngi fiy nekk maire. maanaam gestion collégiale. li ma xam mooy. man maire commune bi yëpp laa. du ma benn parti. du ma maire maire commune bépp laa des fois sax samay ay am na sama ay nit yoo xam ne dañ ciy xuloo man ak ñoom. Mhm. man leen faalewu ma leen sax li may def ñëpp laa koy defal aw ma xaj ak seen. Mhm. donc loolu mooy sama rôle. ñu jël kooku salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna si ñu ngi lay ziar tur bi. ñu ngi delloo ziar bu baax man la Codou Diène. koddu conseillère municipal. Mhm. commune Fann ci tënk ñaari minute lan nga nu mën a wax ci maire bi toog fii tey. aka bari xeeb naa lool sax deux minutes yi. <laughs> waaye dañuy jéem a tënk rek. tënk ko rek. sëñ bi xam nga ci nga toogal. Hmm. kii mooy le meilleur maire du Sénégal. Hmm. xaarul ba Covid 19 am. Hmm. muy dugal loxoom ci population bi. monsieur le maire moomu toog. képp kuy habitant de la commune de Fann Point et Amitié. gis nga ni commune bi meloon. avant muy nekk maire. gis nga ni commune bi mel tout son te yaakaar naa ni hmm. moom mii ñuy toog foofu ci émission bi. Hmm. xam na ni commune Fann Point et Amitié yëpp dañ koy sagoo seen bi hmm. fii ñun suñu tiitër la. ndax dafa fekk les habitants de la commune de Fann Point et ci ay problème mu lever seen inquiétude yi. moom mi ngi doon wax problème problème yooyu la euh, euh, dinañ ci dikkaat. maanaam ba nga duggee ci maire bi ci nga wax ni parti politique jeex na commune bi moo la fa yitteel ndax tey euh, kon dañuy permettre rek ñu xuus tey monsieur le maire commune bi naam doo ma ne tey amul ay jafe-jafe am na ay jafe-jafe jafe bu si gën a jàmp tey lan la. waaw non xam nga moom commune bi moom jafe-jafe moom toujours koom-koom gi lay doon. Mhm. xam nga parce que acte trois li mu indi si ay. Mhm. tolof tolof dafa bari. ah ñoom ñu ne ngëneel la waaw mais ngëneel moom ça dépend ki koy wax nu mu koy tuddee ni mu koy déggee rek. Mhm. mais ñun ñu nekk sur le terrain. Mhm. dinañu xam problème yi nga xam ne moom lañ jànk mais. Mhm. man dama gëm ne. Euh, problème. saa yu amee. nit ki mooy uti solution. solution salaamaaleykum mbokk mi. allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen ñu ngi sant bu baax tur bi. man la euh, benn dëkkandoo Pala Samba di sërëm. Mhm. ñu koy wax Ndiaye Diop dëkk si Cabrini. Ndiaye bisimilah ci ñaari minutes. Pala mi ngi nii di la déglu. ah monsieur le bu ñëwee foofu te wax ma ci moom dafay doy waar. Ah. parce que nag wax dëgg yàlla si Cabrini ñu ngi doog am maire ba gis ci seen bopp. Hmm. fan point euh, amitié moom yooyu jooyu ñu dara namuñu dara namuñu cocok. Hmm. ndax kooku toog noonu. jëmoon sa kanam. waaw. am nañu jardin public tali baax na suñu tali yi amatuñu rëng-rëng. ku am problème amul sans fin. donc yaa ngi woon ci problème yooyu mel na ni koppar la. mais acte trois ñëw na euh, am na ñu naan ñu jàpp ñaar ne ñi acte trois bi ngëneel la ñeneen ñi ne euh, daf leen yokk jafe-jafe ndax yow sa commune daf la gën a sonal wala. am na mhm. xam nga acte trois am na fu mu baaxee am na fu mu. bonee fan ci. am na fu mu am na fu mu baaxee dans la mesure où. Mhm. am na yenn responsabilité yoo xamante ne. Mhm. gën nañ ko jox mair yi. mais nag problème yaa ëpp. jukkil ñu si. problème yaa ëpp parce que. boo jëlee par exemple euh, avant acte trois bi. Mhm. le personnel médical gaspar Camara et tout mhm. ville de Dakar moo leen daan fay. mais tey. Mmh. avec l' trois personnel bi ville de Dakar doon fay yëpp mhm. Gaspard Camara. maire koy fay xam loolu da jafe-jafe te loolu masse salariale bu bu am solo la. de telle sorte que tey jii. bu weer di dee non suñu bopp yi day weex. parce que ñu ngi rey suñu bopp. ñu ngi rey suñu bopp di rey suñu bopp. pour que euh, recouvrement bi mat. ba fin du ñu bañ a am kii yàlla nag suturaal nañu. ci ban fan. amuñu marché amuñu dara. mais nag yàlla suturaal nañu depuis 2014. amul benn weer bu ñu toog. Mhm. am am am arriéré de salaire. soo am arriéré de am yàlla moo ñu suturaal. donc mhm. nous avons nous vraiment jël nañu. Mhm. Euh, rationaliser suñuy dépense. xool li nga xam ne moom mooy l'essentiel. ñu def ko tout ce qui est nag dépense de prestige. man sànni naa ko teg ko fële. li nga xam ne moo a amal solo rek. mooy les réalisations concrètes. salaire u personnel bi. loolu kese moom leneen li des yëpp c'est. mais monsieur le maire Macky Sall ñëw na fi indi euh, paquet bi yow ba xam bénéficié wu nga si bokk nga ci wala. bokk naa si dégg naa ko de bokk naa si. waa bokk naa si mais bon. ba léegi yéen a ngi xaar. ñu ngi xaar ñu ngi xaar dëgg yàlla. ba bokk naa si nag sélectionné nañ ma parce que remplir nañu critères yi nga xam ne. moom la moom nit la leen commune war a remplir pour bokk ko paquet seen. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, mbokk ñu ngi lay ah, ñu ngi sant bu baax tur bi. ça man la Oulay Ba. Oulay Ba waaw Oulay ñaari minute eh, lan nga nu mën a wax tey ci maire. du ko mat sax parce que damay gàttal rek. waaw bisimilah li Ndiaye Diop wax ak kuréel seen moom moom laay dëggal. Mm-hmm. ñun namatuñu dara ndax Palla Samb. Mm. financer jigéen ñi. Mm-hmm. defar suñu tali yi. defaloon ñu ay jardin. Mm-hmm. leeralal ñu leeralal ñu suñu gox. ñu kontaan nag bëgg ci moom lool. sans compter yeneen ak yeneen ak yeneen. ñu koy. ok léegi ba mu jugee foofu li nga xam ne moo di PACASEN bi parce que ñu bari dañ naan projet bu baax la bu am solo mais tardé na quand même mi ngi yéex ne ñu wax ko. absolument absolument PACASEN moom bon wax nañ ko mais ñun ko wax dëgg yàlla man de jariñoo ko. yéex na de ah jariñoo ma si de. mais nag terewuma. Mhm. liggéey man wax dëgg yàlla parce que man xaaruma. Mhm. lenn loo xamante ne lu état luy jóge ci état pour liggéey la parce que yenn yi bon boo ko jëlee comme prétexte. Mhm. parce que naroo liggéey. Mhm. bu la askan mhm. euh, dafa am loo xamante ne da nga dafa war a nekk ci yow muy jikko gor. parce que say nawle dajaloo. bàyyi ñëpp ñi bëggoon jox la yow. gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi ëppoo leen xam-xam gënoo leen judd. ñu jël la jox la yow mais loolu sas la. donc aujourd'hui Euh, li nga xam ne moom moo am solo rek mooy liggéey ba nit ñi gis ko. Mm-hmm. donc kon mairie bi tey fu muy jëlee koppar yi nga xam ni euh, yéen fa ngeen koy euh, defee fa ngeen koy jëlee yéen koppar comme ressources yu bari yéen amu leen ko. mais ñun amuñu ressources yu bari mais mais xam nga li ma la wax rek xam nga boo développé wul une politique financière bu baax. Mm-hmm. développé développé une politique de bon de recouvrement bu baax. Mm-hmm. bu noo dem. donc ñun yàlla suturaal nañu nous avons développé une bonne politique financière mhm. développé une bonne politique de euh, recouvrement mhm. mais maintenant doublé nag mhm. une bonne gestion essentiel la ñuy def tout ce qui est dépense de prestige man gëwuma ko parce que je toujours sur l'investissement parce que euh, dama ñëw jël mairie bi xam naa fi mairie bi toll woon boo buggee wax développement wu réew. buggu wax développement wu gox. infrastructure moom moom moom ngay jëkk gox ba ndax loolu lañ fa séntu parce que ñu ngi wax jardin jardin euh, jardin yi foofu ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum infrastructure. Euh, tabaxal nga fa sax dégg naa ay tali bi nga xam ni duppee nga ko ki nga xam ni mam moo di maam Cheikh Ibra Fall yooyu yëpp ay investissement la yi nga xam ne mu ngi ci commune bi ndax mun nga si jukkil aslëf xam nga xam nga xam nga man bi may ñëw si mairie bi mhm. mun naa wax ne investissement amul si amul si en 2014 fekk moo fi dara ok da nga ñëw kees yi vide wala je je dis investissement kees moom dara aw dara aw mu foon sax donc il fallait investir mhm. donc pour investir nag il faut nga am. Mhm. une bonne politique. Ouais. donc euh, comme que man xam naa fi ma jëmoon bi may jël maire bi. Mhm. man xam naa fi may jëm parce que ban bi may ñëw yor naa programme mu cinq man saa yu ma yeewoo xam naa du ma tato ne man saa yu ma yeewoo xam naa lan laa war a def du ma ne ci dara parce que sama premier conseil municipal programme mu cinq ans laa proposé le conseil municipal juróomi at. Mhm. chaque saa yu ma yeewoo xam naa lan laa war a def. donc du lu may làmbaatu du lu may lu may tâtonner donc euh, ma xool xam ne fii dañ ko war a moderniser boo jëlee amitié 2 par exemple jël une partie de Rive 10 jël une partie de amitié amitié amitié 1. 1968 la ñu gëj a am tali. 68 1968. yàgg na la ñu gëj a am tali. Mhm. amité mooy bi ñuy sos amité 68. si la ñu gëj a am tali. maire yëpp jaar nañ fi defuñu ko. Mhm. ville defaru ko parce que état defaru ko. man ma ñëw man ne dama koy defar. bi ma nee dañ koy defar nit ñi gëmuñu ko woon sax j'ai cinq cent millions sur fonds propres kenn dimbaliwu ma xaalisu maire bi cinq cent millions pour defar tali yi. Mhm. defar tali yëpp ba tey jii sama commune. mun naa am xam ne appel d'offre bi may waaj lancé semaine bi mhm. mooy jeexal tali bu yàqu si commune bi. donc man objectif bi ma mooy am une commune sans sable. à bu ma taree tali yëpp. Mhm. pavé li may pavé yëpp sama commune nit dootul dox ci suuf parce que loolu sama objectif parce que. ñun dañuy tukki di ñëw lu ma gis Europe dama naan lii pourquoi tubaab yi mën lii te ñu mënuñu ko mais la rek. ok donc volonté boobu mën laa am ba tey sama commune foofu laa ko bëgg a yóbbu. Mhm. donc fexe naa ba jardin commune bu nekk. Mhm. quartier bu nekk pratiquement fu si am air rek. Mhm. de jeu def naa fa def naa fa espace espace vert. Mhm. parce que loolu dafay dundal cadre de vie. fexe naa également am fan ok un poste de santé. maa ngi waaj maa ngi waaj réceptionné Georges Laout. donc poste de santé bu bees. Mhm. donc boo jot ci lawut. Mhm. liggéey bi yëpp pare na. ok réception réception bees. yéen équipement yeeg yéen ko tabax sur fond propre. li ko li nga am am na si loo xamante ne suñu ay partenaires. Mhm. en partenariat avec euh, des structures ñun ñoo ko ñun ñoo si jàpp. dans le cadre de euh, la responsabilité sociétale de l' entreprise. am na si ñu si jàppale. ba ba ñu kii mais ñun ñooy équipe. ñun ñooy équipé. Mhm. donc su ma la déggee monsieur le maire euh, euh, commune bi am na fi nga ko fekkoon mais tey am na fu nga ko yóbbu donc euh, foo jëm. non la cest à man xam nga bi may jël maire bi. Mhm. dafa am lu ma diggoon askan bi. Mhm, mooy xam nga li ñuy wax promesse électorale am na am na dégg naa benn. pol responsable politique bu wax ne. Mhm. la promesse électorale n'engage que. Mhm. les personne qui kii qui y croient. la ñuy faral di wax mais man gëmuma loolu. parce que ne pas respecter une promesse électorale c'est une trahison. Mhm. parce que boo diggee nit ki ne man boo ma falee lii laa lay defal. boo ko ko defulooy war nga ko. te jullit warul war morom ma. gor warul man de man de jomm naa ko. parce que man xam naa ne sama politique moom am ñaar moom bokk si. fenn ak sàcc moom bokk si ñaar yii moom bokkul sama politique lu ma mën laay wax lu ma mënul kenn mënu ma ko wax loo mais lu ma la ne dinaa ko def demal tëdd naa la te xam ne dinaa ko def donc man tout ce que j'avais promis aux, aux, de la commune de Fann Point Amitié tey jii may wax ak yow tey jii may wax ak yow mun naa la wax ni je suis au ak à quatre-vingt-quinze pour cent de mes promesses li ma digoon askanu Fann Point Amitié. Mhm. ne boolem bu ma jëlee maire bi lii laay def. Mhm. mun naa la wax tey ne je suis au moins ak quatre pour na pas dire cent pour cent. Mhm. je suis au moins quatre vingt quinze pour cent. de de des des promesses waaw loo xam ne réalise naa ko lu nit teg bëtam. boo gisee lu ma dul du lu may lu ma du bëri du ma ñëw presse looloo tax. parce que dama wax ne. su fekkente ne man pour sama waa commune. gis li ma liggéey. Mhm. foog moo woo télévision. Mhm. kon liggéeyuma dara. Mhm. ñu ma liggéeyal si biir commune ñu dëkk si commune bi. ma defar leen jardin seen koñ. pour ñoom ñu gis ko foog moo woo télévision kon kay defaruma dara. donc loolu la donc liggéey boobu moom. Euh, am na ci loo xam ne du ma man du ma si du ma si kaf du ma si. man liggéey rek laa xam. yàlla daf ma dimbale may bàyyi fa nag avant may nekk maire. nga tali yooyu sax nga doon ko duppee euh, ay tali maam Cheikh Ibrahima Fall. boulevard waaw boulevard. boulevard canal 4 bi. Mhm. canal 4 bi. Mhm. moom la defar ba mu yànji. Mhm. conseil municipal del délibéré. ñu jël kooku monsieur le maire. salaamaaleykum. allo mi FM. waaw yaa ngi ci biir réew mi. alhamdulilah rabbil alamin sant. sànq ba maa ngi woote. mënuma fexe ba jot. Mhm. man damay présenté wu man la. aji kuréel gi. aji kuréel gi. bàjjenu gox ci Kaap Amitié 2. Mhm. man maa nekk ci commune. Mhm. Pala Samb suñu maire. si mu nekk xaw ma sax lu may wax parce que la ma doon daw nekkuma fi woon dama génnoon di daw yàkkam ci jógee dëkk bu ñëw pour mun a wax. Mhm. man di dinaa mun a wax nag si moom. Mhm. waa ci tënk rek ñaari mi maa koy déglu sànq ba léegi muy wax ne. Mhm. li mu promettre woon nit ñi def na ko def na ko. lépp lu mu waxoon si nit ñi rek. si commune am rek def na ko. na rawatina bàjjenu gox yi moo leen daggal salaire. rawatina lépp la def lu wax ne def na ko la def na ko parce man fi mu nekk nii dama ànd ak ay nit may sànq ba léegi si taxi laa nekk il faut mu dugg pour wax Pala Samba si moom la ñu xamee maire moom mooy maire bi fi def maire bi fi wax def ñu gis man nag mënuma wax mais dinaa wax Pala Samba mooy suñu maire moo tax ñu xam maire mooy ñeenteelu meer bi fi ñëw te kenn déggul maire si commune Fann Point E Amitié Bala Samba ñëw nekk maire ñu dégg ko xale boo si yee muy nelaw boo ko nee kuy maire mu ne la Bala Samba moo fi def ni gis <laughs> li mu promettoon nag nit def la ko lu mu ne mënoon naa ko <laughs> te mënu ko <laughs> def ko ba mu ko mënee daf ko def dafa def ñu gis moo tax ñu xam kuy maire moo def ñu gis moo wax ñu dégg Baye Fall bii ku yabu di ko bàyyi xel Pala Samba nii ku yabu di ko bàyyee xel. jërëjëf lay toog a toog ba. ba xaw ma soxla may wax. ah jërëjëf kon sant nañ la kon sant sant sama mère bi. lu may wax si moom dalay tàkkaar. waaw sant sant nañ la moom man naa ko bëgg. jërëjëf jërëjëf ak keneen nag keneen ñëpp ku bëgg. ku bëgg lu baax rek. taalibe Cheikh Ibrahima Fall nii. jërëjëf ku yabu ko bàyyee xel. ca kaw ca kalam. jërëjëf lu mu promettoon ni def na ko. moo fi njëkk dagg salaire. bàjjenu gox. Mhm. ba ñu nekkee bàjjenu gox ba léegi kenn mësul am dara. Mhm. lu ñu am mhm. tey c'est grâce à notre maire de la commune Fann Point E jërëjëf jërëjëf maire ñu jërëjëf jërëjëf monsieur le maire donc euh, euh, tey dañuy xuus ci tey yaa ngi ak ki nga xam ni moom moo di Abdou Karim Fofana docteur Malick Diop Pape Mayel ñu ngi jëm ci ay jongante mbas bi dina fi jóge incha allah waaye politique faaw ñu tudd ko te oh. dañ koy def itam élection maire dina am mais monsieur le maire naka ngay préparer kàngam yooyu nga xam ne ñoom nekk sa biir commune ngir élection municipale yi di ñëw xalaatuma ko sax li nga wax noonu mhm. non xalaatu newul sax sama bopp xalaatuma ko sax parce que am na fu ma ko waxoon euh, beneen beneen organe bu dul beneen kii bu dul bi mhm. bi ñu ma laajee dama leen ne loolu terewumaa nelaw mooy maanaam kàngam yi non terewuma nelaw sax xam nga lu tax mhm. man dama am mandat. dañ ma fal pour ma liggéey. ñoom ñi nga lim ñëpp ku si nekk danga nga woon sa programme. population bi tànn suñu programme. man programme bi nga xamante ne moom laa digoon askan bi. si loolu laa nekk di dérouler. xalaatuma sax ay élection newul sama bopp sax. xalaatuma woon sax xam nga lu ma xalaat. li ma diggante woon ak diggee waa askan bi. ñu jël mbokk moom salaamaaleykum salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. une minute émission bi mi ngi bëgg a jeex lan nga ñu mën a wax te monsieur le maire. waaw lu tuuti rek laa ciy sànni. ba sonn. Mhm. mënumaa fexe ba dugg. waaw ñu ngi jégalu mhm. boobu di Fala Samb. Mhm. émission bi moom lépp lu mu ci wax. dama ñuy gàtt rek lépp lu mu ci wax. moo ca am. commune Fann-Point Amitié jooyatuñu benn maire. Mhm. man de tey ci man man foogoon naa ne maire. Mhm. sukooru màggal sukooru tabaski. Mhm. foogoon naa ne maire du ko joxe. ndax mosuñu ko fee am te moo ko fi indi. wala ñu koy tànn de lañ ko doon jox ak lañ ko dul jox. Balla Samba macha allah laf set. liggéeykat la liggéey liggéeykat la. di taalibe Cheikh Ibra Fall boobu. lépp lu mu wax rek suba ba ngoon. Mhm. billaay wallaay taala parce que Serigne Fallou Mbacke. Mhm. looloo am. jaajëf. Mhm. bàjjenu gox bi kenn mënut a dugg fi mu nekk nii. heure bu jot te kenn mënut lépp lu mu wax rek looloo fa am. looloo fa tegu ci gàttal bon. le maire nga ne yow ñooñu euh, taloo ko. non man xam nga. Euh, Olof Ndiaye xam lu mu wax. buy taw doo fa bere. xam nga nit ku sonn. Mhm. coonoog nit weesuwul. Mhm. muy taw yàlla di wàcc tawam nga yor sa morso fobeere di fobeere. Mhm. xam nga kon yaa ngi bugg bugg bugg sonn. da xaar ba taw sëbët kaay nga soog a fobeere. donc man du ma xaar du ma xaar ba yàlla di taw may fobeere. moo tax ma ne na terew ma nelaw xalaatuma ko sax parce que xam man lu ma am amal importance. j'ai un mandat. dañ maa fal pour ma liggéey. liggéey naa. ba yàlla def ñu yokk mandat bi. Mhm. mais normalement suñu mandat jeex na. jeex na kay donc heure bi waroon na fekk ñun ñëpp ñu toog. parce que man waxoon naa ko sax dama ne woon man juróomi at yi mat na. Mhm. damay woote assemblée générale population bi yëpp ma def bilan. da ngeen ma dénkoon juróomi at man bi ngeen may dénk fii laa jëlee mairie fii laa ko andi ma def sama bilan nit ñi xam. donc man bilan bi noppi na. yàgg na man eh, man cest man j'ai un bilan. Mhm. boo xamante ne man mun naa ko bañ a présenté bilan bi mooy waxal boppam parce que li Olof Njaay di wax weddi gis bokku ci. Mm-hmm. waaw xam nga bilan boo toogee man rek man rek man na maa la ko mun a wax parce que aw ma ko bilan. Mm-hmm. mais sama bilan weesu na. Mm-hmm. man ma la koy wax parce que bu lu ne fàng kenn du ko jeex. amul benn quartier ci sept commune quartier yi nga xam ne moom laa ëmb. booy dugg te gisoo ni ne lii maire commune bi moo ko fi def. donc je pense que aujourd'hui Euh, si loolu laa nekk man. Mhm. mais ay élection locale ak ci sera candidat ak kan moo war a nekk non loolu xalaatuma ko sax. Mhm. yegguñ ca. Mhm. mais man si li ma daal. mooy lii ma nekk ni liggéey bi may liggéey. naa ko liggéey. monsieur ñu ngi dem mel na ni une semaine wala six jours moo ñu des ñu déglu ci korite gi am na ñoo xam ne nag dinañ soxla ndimbal ndax secours boobu yéen a ngi koy waajal. Euh, xam nga nag euh, soo xoolee si nu nomenclature budgétaire yi. doo si gis secours pour euh, korité mhm. secours tabaski mooy am mhm. secours Pâques et cetera yooyu moo am mhm. mais tabas korité en général ñun weeru koor lañ daan joxe li ñuy dimbal gi ñu daan jox nit ñi parce que comme que tabaski ak korité sorianto te nit ñi tabaski bi la ëpp soxla moo tax lañ au ñu koy tas au ñu koy tas def ñuy korité def ci kii ñu dajale lépp def ko opération bu mag si si si ci tabaski bi ma profito également mm-hmm. euh, pour wax la ni par mm-hmm. exemple xam nga ñun bi ñuy defar suñu suñu suñu virement bi mm-hmm. dañ si dugaloon lu ñuy jàppale suñu mbokku chrétiens yi parce que comme que ñoom bi ñuy bi ñuy commencé ñun ñun bi ñuy commencé eh. dafa tombe ak suñu mbokk catholique yi di di woor donc ñu waroon leen jàppale. si si si koor gi ak si si pag bi. donc malheureusement xam nga situation bi demee ni mu demee. bouleversé affaire mais taxul man ma arrêté procédure boobu dama ko continuer. dama continuer procédure boobu parce que dama leen di ndimbal la. Mhm. boo xam ne dafa war a jëm si suñu mbokk chrétiens yi. Mhm. ñoom. mooy profité ci sa antenne bi pour wax leen exclusivité bi mhm. euh, que ne mhm. loolu yemb na mhm. ba semaine prochaine incha allah à partir de mardi dinañ leen commencé fay seen seen seen seen secours yooyu ñooma ñoom ah. chrétien kon fii ci rajo Rewmi FM mardi incha allah daal à de mardi dinañ commencé jox chrétien yëpp seen secours seen secours pak yi ñu déposé woon laata ngay tàggoo rek tey le grand maire Khalifa Sall yow mën nga ñuy jox ay nouvelle am euh, ndaxam yéen a ngi koy dégg ba tey ci li nga xam nekk moom moo jëm ci wàll wi ni mel Khalifa Sall. je pense que boo xoolee nii sama téléphone di nga gis. 14 mhm. heures 32. léegi laa léegi laa raccroché ak moom bi avant may avant may ñëw. lan nga ñu mën a wax ci léegi mu ngi si jàmm. Mhm. Euh, mu ngi noppaloo ko. Mhm. parce que xam nga deux ans et demi kaso. du caaxaan. donc mu ngi noppal noppal yaramam. xoolaat santeem. far nag tombeek mbas mi am. donc moom mu mu mu mu confiné wu. mais daal ñu ngi ñu ngi déggante ñu ngi waxtaan. moom di préparer waat nag. di ah préparer pour pour pour dugaat ci arène politique bi. Hmm. Hmm. dina yomb. non lu yomb amul parce que duñ ko may dara moom moom moo si raw duñ ko may dara mais dara mais ñun. ñuy xaar élection yi ñëw rek. Mhm. alors monsieur le maire émission bi daanaka jeex na dañ lay bàyyi am nga ñaari simili ñi fi dugg tey bari na liñ bi xat na. Mhm. te euh, euh, lan nga mën a wax ñi nga xam ni tey askanu commune Fann Point E Amitié. man li may def rek mooy gërëm population commune Fann Point E Amitié yëpp parce que euh, mun naa wax ne ah aw ma noonu daal man sama commune. parce que même ñi àndul ak man te c'est normal parce que unanimité moom yàlla est-ce que yàlla sax am na ko <laughs> am na ñu gëmul yàlla <laughs> donc euh, ndegam yàlla ko amul moom mi sàkk nit ñi moo ko amul mhm. asama ak man mhm. donc ku nekk am na koy faral mhm. mais yàlla def na sama relation ak sama population mu nekk relation bu ratax parce que yàlla def na ne man comme ni ma la wax man jikkooy Baay Faal gi moo jiitu si man d'abord donc mun naa def ak ku ne mun naa wax ak ku ne donc jàmm laa seq ak sama population. Mm-hmm. moo tax euh, aujourd'hui am na yu bëri yoo xamante ne mu ngi am si yenn commune yi. Mm-hmm. doo ko dégg si commune Fann Point Amitié. Mm-hmm. parce que man maa ngi discuter ak ñëpp maa ngi kaf ak ñëpp maa ngi reetaan ak ñëpp. xàmmee ma ku ànd ak man xàmmee ma ku àndul ak man. parce que ko koo xamante ne commune bi nga dëkk rek yàlla def na ne. man may sa maire. Mhm. donc loolu laa gëm man et que loolu dama koy doxal ba mu mat sëkk. Mhm. ñoom itamit en retour. Mhm. ñu ma koy delloo. parce que à chaque fois ma woote. quelque que soit ñoom fu ñu far. bu dente ne liggéey la bu jëm si maire bi dinañ ñëw jàpp si ba liggéey boobu baax. ku nekk delluwaat fa ngay fa ngay politiquer. donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp. di remercier képp koo xamante ne commune Fann Point Amitié nga dëkk. di remercier góor ñi jigéen mag ak ndaw <laughs> di remercier notable yi chef de quartier yi délégué de quartier yeeg imam yeeg ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp <laughs> monsieur le maire jaajëf merci mbokk yi sant leen gërëm leen jox leen euh, dig daje ba dimanche ak beneen invité incha allahu rabbi